kóllëre dafa am solo si Abdou Lahad dafa ni bu nit yi wut alal del wut nit yi ëllëg am na fooy tollu nit yi rekk moo la mën a jariñ man ci loolu laay dox ma sama sama sama sama xarit la sama lépp la ndax man waali man bu ma ko jàppee waali sekk tax wax dëgg yàlla xaw ma ko woon waaye waali sekk moo tax ma jàpp ma njaay waali sekk moo tax ma bëgg ko comprendre nga tëgg yoon te ma fa demee bëgguma sax bëgguma sax wax bëgguma woon a wax sax some bi ma koy may waaye mu rus naa dem soirée am te du ma ko may 500000 man rus naa loolu parce que xamul tax jàpp naa ko ndax waali te xamul tax yëg na ma. ma nga may woo di ma yëgal mbiram te man ku du soirée waale du ma fa dem de moom laa demaat ci soirée seet si wu ma woowu ma lenn la ci des ci mbedd mi xaj na loolu ñoom seen seen biir mais man sama bopp seet ma woowu ma. li ma gën a naqare nag ci loolu ci majaay man xam nga man moom dama nekk koo xam ne dama direct du ma du du ma wax ci ginnaaw doomu aadama bi sama papa gaañoo sama rakk da ko woo petit ne ko manjaay parce que petit moo woo soxna ay dara woo ñoom waaye woo ñëpp wax leen ko ñi nga xam ne samay ay xarit lañ moo ma njaay ne ko moo dudee papaam dafa génn àdduna ma njaay ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko nag jurbel la kay denc suba ci ci ci ci kii bi ci jeudi bi 17h bi mu ko waxee loolu ma njaay ne ko maa ngi fay ñëw dinaa fa ñëw ba nii may waxee yow bu fa ma tegee tànk man maa génn prison ma dem fa loolu nag dafa maa naqari loolu xam nga lu tax mu naqari ma. Mandiaye bu ñu ko waxee sama xibaaru sama papa génn àdduna yaakaar naa ne même bu ma fekkul ci biti su ma fekkoon ci biti xam naa ne dina ñëw man loolu leer na ma mais bu bu bu ko sama rak wooyee yëgal ko loolu li mu waroon a def mooy taal otom dem ndax sama jëmm ndax defal naa ko teraanga même bu dee 1000 francs sax defal naa ko teraanga loolu nekk lu ma naqari trop trop trop waali ñu wax ko ko waali jënd ay nag yóbbu fa yëkkati xaalis bu bëri yóbbu ko fa. nag yi sax man mënu ma la wax nu mu toll ndax biñ ma woowee ne ma Wally Seck indi na fi ay nag yu bëri man damaa tiit Wally Seck indi na fi enveloppe boo xam ne ma ngi toll ci nangam man damaa tiit ba pare woo téléphone jot suñu kër ñëpp ñu paas kenn par kenn moom Wally mu ni leen bu fi Moodu nekkoon bu ma ma fi nekkoon bokk boobu ma ngi doon dem Fuuta bu ma fi nekkoon man damay teew teewaaleel Moodu waaye damaa nekk ci contrat nii maa ngi ci yoon bi waaye jàpp leen naqar bi ma am nii. man Modou naqar bi mu am rek laa am parce que Modou dañoo bokk ndey dañoo bokk baay noonu mu nekk geste boo xam ne geste noble la mu nekk loo xamante ne ni que nit noonu la ma war a def ci nitam. gis même bu ngeen seexul rek ngeen dox daje nii ngeen xamante rek te musul am teraanga amee jafe war ko taxaw loolu laa xam te Mandiaye bu amoon jafe nii dinaa ko taxaw man te ñaanuma ko yàlla yàlla bu ko am man noonu noonu laay noonu laay noonu laay doxee.